xibaar yi ñoo ngi ciy ànd ak waa Bio Afrique. ndaxte de boo ko jëlee di nga sëy 30 minutes wala 40 minutes bii de góor gu ko jël di nga sëy 30 minutes wala 40 minutes. ndaxte ndaxte ko bëgg essayer parce que lu mat 21 garab a ngi ci. 21 garab a ngi ci bi ci gën a tuuti mooy ñàmbi bii dong lañ jëlee Sénégal. ñàmbi bii dong lañ jële Sénégal waaye ndaxte li mos xam la dina la sawarloo tey. di nga mën a sëy sa jabar cinq minutes wala trent minutes yow 20 minutes yi ngay wax ak 10 minutes xanaa boobu dañoo jëlu. mais loolu moo jaaxal ñëpp. déedéet boobu dañoo jëlu ndaateel ndaateel la ngi mos xam defar kër jeeg ji te jigéen ji moom boo bëggee bu jigéen bu lay sonnal yow it war nga koo fay borom kon nag bu say cër tàlliw doo mën a def dara léegi nag ndaateel moom boo ko jëlee say cër dina tàll dina la sawarloo di nga am activité tey. dina raxas sa deret bi ci sa naq bi ba mu set ndaatee lu noonu lay njëkk a liggéey de ay ferñeent yu muy def sa yaram bu amee 10 minutes wala 30 minutes bu la neexee nga jël ndaatee li di nga mën a sëy 45 minutes wala 40 minutes ndaatee li dangay cof tuuti mëq naan ndox xaar ndaatee li ba xam lu muy defar ndaatee li day raxas deret ji ci naq bi ba mu set wecc tey dangay sawar siddit yëpp ay taxaw. ndaatee a ngi mëq naan ndox. cofal nga mëj ko naan ndox ngi te dina yokk ndoxum góor. te góor lu ne bokk li tax ñu boole ci ñambi ñambi dafa baax waaye ñambi kese defarul kër ñambi kese defarul dara ñambi ji nag dañ ko cee boole parce que ferñeen ñu door xibaar yi dooree ko ci waa jaraaf bu Medina ñoom nag tey jii la ñuy feetu seen cinquante cinq maanaam juróom fukki at ak juróom club boobee di jaraaf am nañu ko tey jii ndax ñoo ngi ko fonde woon maanaam ñoo ngi ko taxawaloon ci atum 1969 le vingt neuvième mois mille neuf cent soixante neuf ci la ñu taxawaloon club boobee di jaraaf tey jii nag ñoo ngi ci vingt septembre deux mille vingt quatre kon am nañu cinquante cinq ans seen anniversaire bi nag ñoo ngi leen ci ñaanal ay xéewal muy waa jaraaf bu ndakaaru ñuy jugee ci waa jaraaf bu ndakaaru jël doomu Mauritanie bi tudd seen Boda moom nag dafa nekkoon ca FC di bu nekk ci riiwu Mauritanie bàyyee koo fa dem ci réewu Maroc club bu ñu naan Wydad Athletic waaye kat moom ak waa club boobee dañoo amoon ay jafe-jafe loolee taxoon nañu dagg contrat am génnul nag réew moomee ndax xaatim na contrat ci club bu ñu naan Raja moom mii di Mohsen Boda kon nag nañu ko ñaanal mu doxal ca Raja ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ca Wydad Athletic xaatim na contrat bu bees tàq ca Raja kon nañu ko ñaanal moom mii di milieu de terrain ñu jugee ci seen Boda ak clubam bu bees dem ca waa Nantes ñoom nag seen club boobee tey jii dafa am ay xabaar yu génnoon doon wax ne doomu Angleterre bii di Alexandre Arnold dafa bëgg jënd club boobe di Nantes xibaar boobu nag président wu Nantes tudd Waldemar Kita weddi na ko nee na xibaar boobe wérut kon nag ñi doon wax naan Alexandre arnoldo dafa bëgg jënd club boobee di nant juum nañu ndax président bi weddi ko tey jii ñu jugee ci président wu nant ak leeral yooyee mu indi ci rumeur yi amoon tey jii ci bëccëg bi dem ca waa Manchester United ñoom nag tey jii bi ñuy tàggatu maanaam bi ñuy entraîner am nañu ñaari gan ci seeni entraînement ke ca njëkk nag ab defenseur la muy doomu Suède bii di Victor Lindelöf moom dafa amoon ab blessure tey jii entraînement bi bokk na ci ba mu jeex keneen ki mi ngi tudd Tiral Malacia doomu pays bi dafa amoon blessure bu metti lool mën nañoo wax ne sax am na at footballut ak waa Manchester United tey ji bokk na ca entraînement ba loole nag xibaar bu neex la pour ki leen di tàggat di Eric Ten Hag ñu jógee ci waa Manchester United ak seenub xabaar bu neex jël doomu Allemagne bi di Ter Stegen di góolu ca Barcelone moom nag góol bu mag la te li muy def mën na ko lool loolee kenn du ko weerante waaye kat baaxaayam ak mën a dafa mel ni feeñul ci ligue des champions bi ndax ba mu demee ca Barcelone ak tey jii li mu góolu ci ay match mu soxal ligue des champions mi ngi toll ci quatre vingt cinq match li mu ca encaissé ci ay bit nag moo ëpp ndax li ñu ko dugal ci ay bit ci ligue des mi ngi toll ci quatre vingt dix neuf bit moom Ter Stegen kon baaxaayam dafa mel ni jëmul ci ligue des champions wala gaa ñi ñoo ko gëlëmal gëstu boobee nag Marca moo ko indi tey jii waaye kat moom sa gën duñu ko bàyyeegum ndax ca compte Instagram programme am dafa désactiver commentaire yi maanaam fi ñi abone ci moom doon waxee seeni xalaat li ko waral moo di ñu bëri dañu koy bind naan ko yow teer sa gën xamoo dara jugeel Barcelone loole bokk na ci li tax jamono jii tembe may wax ak yéen dafa désactiver commentaire yi ci page compte Instagram am loolee la teer sa gën amal li ko waral moo di commentaire yu négatif maanaam commentaire yoo xam ne gaa teguñu ko ci yoon lu leen neex la koy wax ñu jugee ci leen ak ndogal loolee mu jël ci compte Instagram am waaye clubam di Barcelone duñu leen bàyyee gum bu ñu sukkandiku ci matte Moretto waa Barcelone dañoo bëgg lool doomu pays ba bi tudd suuteen gone gi li muy def mën na ko lool ab milieu de terrain la ma nga ca PSV Eindhoven di doxal gone gi nag prix bi ko bàyyi foofee ca PSV Eindhoven mi ngi toll ci trente jàpp trente cinq millions d'euros loolee la Matteo Moretto xamle ñu jugee ci waa Barcelone ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Real de Madrid club boobee nag dinañu jongante final intercontinental loolee nag du samay kàddu kàddu marka yéenekaay la coupe boobee miinu leen ko muy intercontinental waaye kat moo di coupe du monde des clubs bi ñu miinoon ndax club bi nekk ci Europe da daan dem football demi final final waaye bii Real de Madrid day dem directement ci final ba final boobee le 18 décembre la ñu ko war a amal ci réewu Qatar fu ñu naan Doha foofee la final bi di amee coupe du monde de clubs bi dañ ko soppi léegi club yu bëri ñoo koy jongante ci atum 2025 la ñu ko war a jongante moo tax ñu soppi bi nga xam ne moo nekkoon